premier ministre Amadou Ba ministre de l'intérieur Antoine Félix Jean, ministre de la justice Ismaïla Major, Fall ñom ñëpp daal nañ togon taskatu xibaar yi gindi leen ci li xew ci réew mi Ousmane Sonko de leaderu Pastef bi ko daan ñaari atu kaso ba tey yoon ko loxo te itam ni gëni demb daal gis cité gi mu koy cité la décision est en cours de réaction par le juge. Et nous, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite pour votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible, il faut qu'elle lui soit notifiée. Troisième élément, une fois que lui-même se constitue prisonnier ou que le parquet aille le quérir pour le mettre en prison, il a dix jours pour acquiescer à la condamnation. Wa mani, lan mo fi ñor bañ koy màcc bu fekkee momilé di Ousmane Sonko daan nañ ko ñaari atu ba tay la war defaguñ ko ci mom ngir yóbbu ko nungu sin lan mo tax ñuy barricader buntu kërëm ba kenn demut kenn dikul mais quelqu'un qui se lève pour dire.

wante Ousmane Sonko weetul ci xeex bi de ndax booy Pastef yaa nga sànni woon xeer ay bés yi lee ñu weesu jamono yi lee nag magu Pastef yi takk ba dëgër ngir jàppale ko lañ mën. suñu leader nag ñun dañu jaaxle tëj ko këram privé ko de ses de liberté mënul dem mënul dikk te dégguñu ko fenn y a aucun document juridique bu wax ne war nañ ko def lii ñu ne nag nañu wootee nag wax ak nit ñi nag wax jot na. cas bi lee nag critique na ba yegg si lool. ba gouvernement du Sénégal dàqul benn yoon defub dialogue ngir indiwaat jàmm ci réew ce que nous voulons c'est la paix ce que nous voulons c'est la sécurité ce que nous voulons c'est de développer notre euh, aspiration commune à vivre ensemble c'est euh, ce que ce qu'a demandé le président de la République et c'est ce qu'il veut. coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba tay pënd ba wuregul yoon jox verdict coow ne kur fii ci réewum Sénégal ak àdduna wërngal kep Ousmane Sonko mi nga xam ne nag mooy nday mbill gi ba tey yoon tegu ko loxo ndax dina ko teg loxoom déet te sax bu ko tegee loxo ndax du juraat coow fii ci réewum Sénégal jërë ngeen jëf ba beneen incha allah